ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. jaa ngeen jëfati fidèle téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm ci seen journal de la l'arène bi nga xamante ni dama ci ànd saa su ne ak sama càmmiñ sama xarit euh, Babacar Babacar euh, nuyu naa la ziar naa la. <laughs> maa ngi lay fay soxna Oli. Mhm. si maa ngi si jàmm bu baax. maa ngi lay bàyyi nga nuyook euh, say téléspectateur ak say xarit. waaw di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi suivre rek à travers Equivox TV. Mhm. di leen ziar di leen ñaanal jàmm. Mhm. et di ko saaku si ñoom den leen balu àq rek encore une fois ndax du doy. ci mhm. koor gi parce que li ñuy juum bëri na li ñuy def ay dégâts bëri na. te bon. ñoom ñi seetaan ñoom ñoo ñu gën gis loolu kon fu ñu juumee rek ñu leen di jégalu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax. amiin yaa rabbi seen journal de l'arène comme euh, ni ngeen ko xamee à chaque fois dañuy ñëw di traité li nga xamante ni mooy actualité boo xam ne dafay laal li nga xam ne moo di làmb euh, saa su ne nag ñu koy faram-fàccee ak Babacar Babacar li ñuy def mooy dem seeti ji revue des titres su baaxee rek ñu dem. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 22 avril 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu lamb nag tey xëtamu njëkk ca xamu ca xëy fesal tey kenn la le troisième tigre de Fass ñu naan ko Gris Bordeaux ka xëy di wax nag du kenn ko dul xalifa jama nga xam ne moom mooy mënaat seram daal yor ko di ko mënaat se ci wàllum làmb xalifa nag moom la mu xëy di wax ne na leer nañ bu kenn jaawale samay wax xalifa jaa ko wax nag du samay wax xalifa ne na daal Gris doo maanaam du mbër moo xam ne dañ koy fay ay cinquante millions ak i soixante millions muy bëre Khalifa jaa wax loolu de nee loolu moom ku yor say cinquante wala say soixante millions bu yeboo nga delloo ko ci say poos wala say tiroir waaye du Gris doo nga koy jox ndax moom jàpp na ne seenu mbër dépassé na loolu yemu ca ka nga xam ne tamit jàpp na ne seen mbër dépassé wu ko mooy ka nga xam ne nii moom moo di Lac de Guiers jàpp na ne seen diggante ak Lac daal Khalifa mooy wax ba tey de nee mbir la moo xam ne ni daal combat boo xam ne combat bu logique la maanaam lu jaadu la xel nangu na ko nee itam bu ko promoteur doxee fay leen dañuy jël la dëgër bëre ak moom dafanteeg moom ba mu saf sap loolu mooy xëy nga xam ne nii moom moo di xalifa Dia kii moom loo ci mën a dégg yëglekaay bi xëy na tey ñëw ci moom mel ni kii moom jamono yi mu fi nekkee ay jaloore la fi nekkee woon di ko def moom yax yu jub yi ki ne at ya mu toog daanu ko mu nekkoon loo xam ne jaaxaloon na waa làmb parce que la tam la taxoon mooy mbër mu toog at yu tool noonu te kenn daanu ko nekkoon na lu jafe-jafe-jafe waaye bés ba mu daanoo nag yëglikaay bi ñëw na tey dina ko li moom sunu làmb mu tombé woon nag 22 avril 2012 ka ko daanoon di Balla Gaye numéro 2 di xale bu nekk ca Géejawaay ka nga xam ne ni moo ko daan ca bés booba yëglikaay bi moo tax mu ñëw dinu di nu deux le deux mille 2012 tey nag ñu nekkaat li deux mille vingt 2021 mel ni ki nag juróom-ñeenti at ginnaaw ba nga xamee ni ni maanaam daan nanu ko yëglikaay bi am ñoo xam ne dékk na leen ca micro laaj leen ca seen xalaat ngañ jaañ ma nekk ca e-média wala e-radio la mu xam ne daal nee na fa maanaam bés ba mu boobu maanaam Yékini wala ca jamono jooju bokk soo bëggee dégg-dégg fin de règne la nekkoon maanaam daal da jeexal ca foofu la tombeeloon ngañ jaañ loolu la gis lamit Samba moom nee na bés booba kàddoom la ñàkk maanaam baatam da koo réer ndax maanaam mbir ma na mu demee daal xam naa ne moo ko jaaxaloon wala mu bette ko Malick Thiandoum moom nee na loo ci mën a dégg maanaam moom Yaxya Jóob Yékini jamono jooju moom ñépp dañoo bëggoon mu daanu ndax nag taxawaayam ci làmb ji moo metti woon doyoon waar loolu ñëpp di xaar fan la ñuy gisee ab jëllam ak ko koy daan ne na moo tax le 22 avril 2012 jooju maanaam deseetu ko fàtte ci anaalu làmb càndum moo gisee noonu keneen koo xam ne nii moom taxawal na combat muy Sidi Jaxate Sidi Jaxate moom que mu xëy taxawal wala la mu xëy taxawalati bokk na ci Ousmane Gandigal ak Alaaji Gaynde boobu combat daal loo ci mën a dégg moom Sidi Jaxate fi na boobu combat yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci mu mel ni ki ñaar yu mbër def nañu ab signature contrat fa nga xam ne nii moom moo doon ca Thiès ginnaaw ba Ousmane Gandigal duggee Thiès daan saafijee ki nga xam ne nii moom moom moo di Alaaji Gaynde ne na ko doo fi génne noonu balaa ngaa dellu Gandigal dinaa la lijjanti ndax saafi noo bokk Thiès ña nga xam ne nii ñoom ñoo yore làmb ji di waa CNC la nga xam ne nii moom lañu bokk muy drapeau de l'État ba nga xam ne ñoo ko waa réew mi ñoo ko bokk ñu wax suyéene ko amal nag muy vingt et unième édition yëg li kaay bi nag gaaya daal démb wala boog fan yi demoon nañu visite de terrain fa xam ne nii moom moo doon cag Kaolack yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb moo xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom ca côté Kaolack googa la dëkkee wala du ko sori muy Aliou Ndour yëglikaay bi ne na daal loo ci mën a dégg am na structure boo xam ne juddu na te itam la ko tax a juddu mooy fexe ba yokk làmb yóbbu ko feneen foo xam ne ni amu foon ci Sénégal maanaam ñëpp di du jundu làmb ka ko jiite nag du kenn ko dul Aliou Ndour moom nga xam ne moom la ñu leen wax léegi muy Sibassor production maanaam daal kon soo bëggee dégg dëgg soo taxaw na te itam maanaam Sénégal ak li ko wër rawatina Kaolack maanaam daal fas nañ fa yéene di tëgg ay lamb di wane seen bopp bu baax a baax a baax keneen koo xam ne nii moom loo ci mën a dégg ñëw na ci lamb ji maanaam bëgg a yéene wane boppam muy promoteur ba nga xam ne doomi yëmbal la dëkk ca yëmbal di amaja xëy na taxawal benn combat boo xam ne daal combat espoir la yëglikaay bi moo nu ko wax mu dox ci diggante guy gi 95 ma nga xam ne nii moo nekk école de Mor Fadam di ànd ak guy gi ak rawaat ma nga xam ne mu nga roog énergie di ànd ak ka nga xam ne nii moom moo di móotuloo ca Parcelles Assainies bu nu fa jógee dañuy continuer record record moom la munu xëy xamal daal maanaam ci diggante Balla Gaye numéro de ak Boy Niang la ñëw ak ñeenti hypothèse yoo xam ne daal tax na daal maanaam seeni mbir yëglikaay bi xëy tey jàngat ko ci ñaari mbër yooyu nga xam ne Gaston Mbengue moo tëgg seen combat boo bëggee dégg dëgg moom loo ci mën a dégg ñoom ñaari mbër yi daal yëgli kay ba xëy na tey topp leen ci am jàngat keneen koo xam ne nii record topp na ko muy jax bi saison bi ubbee maanaam ba bi koor gi ñëw daal jax bu bëggee dégg-dëgg terrain gaal gi moom bu ñerwaa am na fa ci wàllum promoteur duñ ko nome kenn ku dul jax ndax nag ñetti journée yam fa tëgg yëglekaay bi xëy na ko moom record mu toll ci ay millions lu toll ci huit millions cinq cent yoo xam ne daal jot na ko faa génne moom Jax wane fa boppam bu baax a baax a baax ci làmb ji nga xam ne moo di làmb simple waaye moom Jax tamit lu mu fa tëgg ak wala boog lu mu fa teg ci ab xaalis bu baree bare am na ñoo xam ne way nañ fa lu toll noonu wala ñu tëgg ko fa muy ki nga xam ne nii moom mooy diwo bi nga xam ne nii mooy moom mooy mbayang lum ak moom moo ngoom jamono ji Jax di def lool ca terrain gaal gi di teg xaas bu bari mbër yooyu bëri di daanante ña doon xumbal bés ba moom moo di moom ngoom mbayang ci tëgg way kon daa mel ni Jax tamit daal soo bëggee dégg-dëgg loolu record wax am na de terrain gaal gi moom loo ci mën a dégg Jax daal daa mel ni mu ngi fay def lu doy doy waar moo tax fi mu nekk nii daal li ñuy ñaan yàlla rek yàlla na nu yàlla may nu woor ak jàmm yàlla nangul sunu koor te itam nag buñ ci jógee mën a delluwaat ci la nga xam ne nii moom mooy activité rawatina yuy làmb ji waaye yàlla na fekk corona bi sax jeex tàkk nag gomis ndax nu gën a mën a libre voilà moo doonoon nag suñu revue des titres ñu doon ci ànd ak l'incontournable Babacar mhm. Babacar tey nag dañ koy dooree comme saa su ne rek ak suñu quotidien suñu làmb nga xam ni tey euh, dafa xëy tey ci jeudi gi 22 avril wax ci ki nga xam xamante ni moo di xalifa euh, Dia xalifa Dia di manager bu troisième tigre du Fass moom nag dafa wax ci Gris Bordeaux ne daal Gris Bordeaux ne c'est pas un lutteur de 50 ou 60 millions te jàpp na ni combat am contre Lac lu logique la Babacar loo ñuy euh, wax tey ci loolu. waaw soxna Oulimata daal. Mhm. tey kon ni nga ko waxee. bon xalifa ja moom mooy manager Gris Bordeaux. Mhm. maanaam mooy licence am. Mhm. di toppatoo wàllu combat am ah na Gris du mbëru cinquante wala soixante million ah loolu tamit nit ku ne am nga droit ne sama marchandise lii laa koy jaay lii lay jar du jar lii. waaye nag yaakaar naa ne tamit fi làmb toll tey. Hmm, wala fi ñu toll ci làmb. wala fi Gris Bordeaux toll ci carrière. defe naa tamit. bàyyi làmb la gën a jege ka resté ci làmb kon defe naa ñi koy manager wala ñi ko encadré nañu xool bu baax a baax a baax a baax li ñuy def tamit parce que duñu leen ko jàngalaa ah, mais nag am nañ droit joxe suñu xalaat mhm. comme ni ko journal bi ñëwee bind ko nga laaj ñu suñu xalaat dañuy joxe suñu xalaat mhm. mbër moom boo ko yoree ñoom ñi ko yor depuis muy fayeku ay junni ba muy fayeku ay million xam nañ li war a ne ak li war a ne xam nañ li jaadu ak li war ak li jaadu mais bon am na loo xam ne tamit yaakaar naa tey Gris Bordeaux bu ñu ko indilee kasaw cinquante wala soixante millions mhm. defe naa ne ku ko indil mhm. war na mën a waxtaan ak moom ba xool nu ñuy déggoowee bu dee dañuy dolli ñu dolli ba kooka wañ a dem mhm. mooy gën a wóor parce que tamit dafa am fu réew mi toll am fu làmb toll ba nga xam ne daal ah, bi ci des mooy seen diggante ak moom lu loolu yàgg nañ ko wax loolu moom ku ne xam na ne combat bu neex a neexal. dëgg la Babacar tey nag le jeudi 22 avril euh, le 22 avril 2021 ñu xam ni Babacar 22 avril 2012 ci la ki nga xamante ni moo di Yékini ca la daanoo woon daanu boo xamante ni mu bett ñu bëri nag ci ay amateuru làmb bett Sénégal yépp tey jii nag euh, marqué 9 ans yoo xamante ni depuis boobu li mu bi mu amee ba tey ki nga xamante ni moo di ngañ Diagne lamin Samba ak itam Malick Thiandoum daal di cay profité rek. pour wax daal euh, jéem a fàttaliku xaw a fàttaliku euh, bés boobu euh, Babacar ñu bàyyi la nga faram fàcceel ni tuuti kenn ku nekk ci ñoom li mu wax. waaw bés boobu day bés la woon boo xam ne kenn dootu ko fàtte si anaalu làmba parce que 22 avril. 2012 wëpp wëpp ami kere lu doy waar am na. fa nga mhm. xam ne moom moo démb jóg. Mhm. benn xale boo xam ne dafa ñëw si làmb am ambition. daal ci kaw mbër moo xam ne maanaam ñi ma woon a daal ci kawam bëriwul wala wala boog boo ñimee daal ci kawam tamit mhm. est-ce que di ko daan mhm. loolu nekkoon problème bi mhm. kan muy daan yax ya loolu moo newoon problème mbër yu baree baree bari bëri nag yenn mbër yi trois combats ñii ñaar ñii benn ku ci ñëw mu daan la yaa ngi dégg Balla Gaye ñëw dëkk ko Luc Nicolaï tëgg combat bi mu nekkoon histoire coow lu bare bare bare bare avant combat bi. Mhm. mais après nag ba ñu bëri ker ci Demba Diop. Mhm. Balla daan ko mu nekkoon lu doy waar. Mhm. ngañ jaañ nag la mu wax ne xëy na boobu ci fenn la nekk. ah mën nañ ko nangu parce que tamit boo defee 15 ans de carrière daanu wax dëgg yàlla boo demee ba euh, du bëgg a si 16 ñuy doog la daan. defe naa ne bu ñu nee fenn la tamit. mënees na koo nangu war na logique. mais bon euh, fenn la d' accord mais ci benn côté dama daan tamit. Yékini boobu bàyyeekuwul. déedéet la ko waroon ci làmb ji da koo def ci entraînement. Mhm. indi doole

attention te am na bëgg-bëgg te mën na bëri muy Balla ki ci des muy càndum li mu wax tamit que ni Yékini ñëpp doon xaar fi tam wala boog bëri ñu bëggoon a gis tam effectivement maanaam ki koy daan nekkoon na lu sénégalais yi laaj kan moo koy daan parce que Yékini daf daan am benn slogan bu mu amee woon mhm. gëw ma daanu daan laa gëm ñëpp jàppoon ne kii dina nekk ci làmb ba dem kenn du ko daan moo tax ñëpp doon ko xaar moo tax bi mu amee mhm. mu nekkoon loo xam ne xibaar bu doyoon waar la tey nekkaat le 22 avril mhm. mhm. muy juróom-ñeenti at kon yàlla na yàlla def jàmm yàlla may ko retraitu jàmm parce itam exemple la royukaay la ci sportif bu ne rawatina mburu làmb yi moom mu yi nga xamante ni euh, depuis boobu ba tey euh, voilà ça fait neuf ans léegi Yékini euh, nekkatul roi de l'arène mën nañ mm. ne voilà dañuy daal di euh, donc dem ci ki nga xamante ni moo di Sidi Diakhaté mm-hmm. mi nga xamante ni moo tëgg fi mu ne nii euh, diggante Ousmane Gandigal ak Alaaji Gaynde moom daal dafa mel ni diggante bi voilà officiel na ba pare ficelé nañ ko waaw ficelé na ko ndax bërki démb ndaysaan déggante nañ ci xam moom suñu papa la déggu baax Sidi Diakhaté mm. dëkk sa Thiès mm-hmm. di yëngal làmb tamit rawatina foofu nga xam ne moom mooy ci Kajoor bu ñu ne Kajoor nag mooy région de Thiès mm-hmm. ak li de ko wër bari na journée yu mu fay tëgg ndax bu yàggu rek tëgg na fa Ousmane Gandigal mi ak Safi Dieng mhm. yàlla def Ousmane daan xam naa loolu noo tax nag euh, kii fippu mhm. mer gembu comme li ñuy wax rek moom Alaaji Gaynde ne ko nag doo génn Cees damay jël sa avance bëreeg moom mhm. Sidi Diakhaté taxawal combat bi waaw bi ci des mooy Sidi Diakhaté tamit exemple boo xam ne wax dëgg yàlla itam ah vraiment mu ngi dundal làmb daal foofu ndax ku ne xam ne tëgg na beneen combat war ko amal ca Mbuur muy diggante ak ki nga xam ne nii moom moo di Gambien muy combat boo xam ne bu mag a mag la kon Sidi Diakhaté Ulimata ah ñu ngi koy ñaanal yàlla journée boobu mu yegg ci jàmm rek amin amin yaa rabbi Babacar euh, bu ñu fa jógee euh, dañuy wax ci li nga xamante ni mooy di euh, drapeau chef de l'état 21e mm. édition bi ñi nga xam ni mooy CNG nag moom tamit daal dinay dem seeti ji def na visit terrain hier fële ca Kaolack Babacar ñu bàyyi la nga wax ñu ci loo ci xam ak sa xalaat waaw xalaat bi daal mooy ah defe naa nit ki tamit li olof naan fagaru gën fayu loolu la ñu def parce que bu fekkente ne ñoom ñooy waa CNG yore làmb mm-hmm. war a si mois de mai bi mhm. dafay baax tamit ñu dem def visite de terrain dem saytu ji terrain bi mhm. xool mbir yi naka la war ak nuñ ko organiser parce que tamit mbir mu mën a doon dañ koy organiser pour mu baax mhm. mais tamit du nekk doo xëy ba bàyyi ba mun a këtt ne jon rek ngay doog a jóg bu keroogee ay jafe-jafe man na am kon defe naa Bira Sène ak ñoom Maysa Ndiaye ak équipe bu CNC bi yépp vraiment ñu leen di ñaanal daal seen organisation bu njëkk ci drapeau chef de l'État en tant que yu bees yàlla nañ ko réussir ak jàmm te am nañ ci yàqin fañ ndax région wu ah wax dëgg yàlla euh, boo nee moom xam ndaw tay seen kese day doy mhm. ak ñoom maam jambaan joom ak yenn samp yoo xam ne bu ñu leen doon lim duñ fi jóge tey ay ay njombar ñoom ñëpp ci côté boobu lañ jóge dëgg la muy lu leer Babacar bu ñu fa jógee dañuy daal di dem ci euh, suñu quotidien bii di le record moom nag euh, tey dafa xëy xëy wax ci diggante Balla Gaye ak Boy Niang 2 mhm. quatre hypothèses la wax et leurs conséquences Babacar waaw loolu day ay waxi li leen di xaar. ci ñeenti mbir. wala lu leen ci mën a fekk. loolu nag maanaam yëglikaay bi jàngat la def maanaam boo xoolee. ñoom ñaar seen i jaar-jaar ak mbër yi ñu bëreel yaa ngi dégg tamit parce que combat bi gis nga combat bii Boy Niang Balla Gaye 2 bi combat bu doy a doy waar la combat pièce mooy combat bi te ku ci sàggan si ñoom ñaar boo naagoo mën ngaa dugg ci fiir gi te bu duggee ci fiir gi dina métti ci yow ndax li ko war a lenn la Balla Gaye ku ne xam na ne tey kenn dootu ko jàngal làmb parce que tamit lu mu wane la. koo xam ne la wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ci làmb ba tey fi mu teg tànkam ci làmb ku ne gis na ne mbër la moo xam ne sénégal yi estimé nañ ko ci façon bi muy bëree mais boo ko supporté wul nit ñi dañ koy wax parce tamit loolu moom la wane muy ko mën a bëree am talent macha allah mhm. yaa ngi dégg am sañ-sañu làmba mhm. ba tax tey mu dégg roide sereen yegsi fi mu yegsi di bëree xale boo xam ne tamit li ma la wax mhm. li olof naan mbuusu gone bu nu sol yàpp mag mhm. mooy Boy Niang 2 mhm. ku jara bàyyi xel la ci lam parce que day xalaat macha allah mhm. mbër mu am encadrement et puis mën a bëree lool ma seetaan ko mu bëree lit simple tournoi ba jël ko Ndeye Ndiaye tey gën a organisé woon ca Iba Mar Diop muy mbër moo xam ne nii li olof naan ku xeeb xel mu lakk sa dàgg waaye xeeb ko du wóor moom booy ñang ni <laughs> muy lu leer mu jar xel donc Babacar bu ñu fa jógee dañuy euh, daal di dal ci euh, dernière dernier titre euh, le record tey ji mu wax ne Jax seul maître à bord de gaal gi mu mel ni nag fu mu ne nii combat yi ñu jot a tëgg fële ca terrain gaal gi yépp kii di Jax moo leen fa tëgg Babacar yaakaar naa ni lii daal wax ji farankulaay na daal sel maître à à gaal gi wax seul maître à gaal gi. Mhm. bon loolu boo ko gisee li tax yëglikaay bi wax ko. ñuy nuyu suñu frère Abou Ndour moom mi def boppu jàngat defe naa ne jàkk ren. Mhm. Euh, moom moo ubbi làmb ji fii ci euh, ci Dakar parce que mhm. boo xoolee moom. le 27 moom moo njëkk a teg. yaakaar naa ne wala avant le 27 moom daal mu ubbi làmb ji ren Dakar. teg benn mise bu am doole fa nga xam ne moo doon gaal gi keroog mbooloo ma fa daje dafa doyoon waaye ba mbir mi débordé. ba ñu yaakaaroon làmb mu yegg. mu dellusiwaat defaat ko muy deuxième fois. Mhm. defaat ko troisième fois. Mhm. muy dimanche bi mujj avant ñoo woor. Mhm. kon defe naa ne wax dëgg yàlla mu fa génne ci xaalis bëri parce que huit millions cinq cent. teg na ko fa ci ñetti journée kon moo lay wan ne kon Jackson wax dëgg yàlla buñ buñ buñ ko tuddee le roi de gaal gi sax wala roi di gaal gi sax defe naa ne dafay jaadu. parce que li tax mooy. lu mu fa wane la. muy koo xam ne tamit vraiment organisation. des fois mu am ay faay waaye saa yu amee ay faay bu dellusiwaat di xam ne dellusiwaat na te la ko wane mooy ba mu njëkki organisé mhm. ak ni gars yi namee woon làmb mhm. amoon na ay quelques faay mhm. mais ñaari journée ca topp boo fa demee di xam ne Jax li muy def tamit da koy teg si yoon muy koo xam ne ñu ngi koy félicité ci loolu di félicité promoteur yëpp muy koo xam tamit vraiment mu ngi dundal lit ak lit simple bi bu baax a baax a baax moom Jax ndax nag ko effectivement Babacar donc ñu ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal itam comme ni nga ko waxee rek képp kuy promoteuru làmb di leen ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéen ay amateuru làmb également di ñu suivre saa su ne fii ci mm-hmm. Equivox TV mais balaa ñuy euh, tëj nag Babacar dama lay bàyyi euh, nga tàggatoo comme d'habitude tàggatoo ak say xarit ak say waay say am di jàmm waaw suñuy xarit suñuy waay parce que mm-hmm. maa ngi yow ko bokk dëgg la nuyu encore une fois nuyu comme ni mu ko waxee woon rek gars yi suivre mm-hmm. waaye di nuyu sa mbokk waalo waalo yi doomu waalo nga yaa nga dëkk bëri saatoon pire kon moom ku waalo moom te nañ waalo tooy na ndax ndox maa ya ko waral kon képp kuy waalo waalo maa ngi lay béggee ci turu Oulimata Seck mi nga xam ne doomu waalo la mhm. mais du nuy tamit ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ah, di ñu topp ci JDA bi mhm. am ñu seen fay mhm. ku mel ni Cheikh Bass moom saa su ñu ngi koy jaajëfal moom nee na moom bu soobee yàlla daal mu ah mu ngi invité dimanche day def ay ndogu kon Ami Diouf ak Oulimata ak Gomis waaj leen Cheikh Bass woote na waaye ki nga xam ne moom mooy moom moo ñaar tamit du ma ko mën a bañ a nuyu mhm. Cédric maa ngi Marceline Ndour maa ngi koy bëggee mhm. Alassane Ndour nag moom ku ma sonal la moom Alassane Ndour moom non kenn du fàllu ñam suñu fàllu borom maro kooku mënuma ko moo ko fàtte rek du ma ko loolu koy jàpp ko fàllu ak Omar Tawa uh-huh. ak Saliou Khoulé uh-huh. ak Rimka Couture mm. ah mm-hmm. ak Ndongo Fall <laughs> ak Khadiro Ndiaye ca Allemagne ak tuuti yaay Sarr Espagne. ñooñu mënu ma ak Asi Diagne ci Nouakchott Mauritanie <laughs> ñooñu maa ngi ñoom la ba may door ah Saliou Ciss l'international kenn du moom sama latéral gauche boobu gis nga ñaari bi yi mu dugal bërki démb mhm, allah kenn du kooku maa ngi koy bëggee ci AS <laughs> Nancy Lorraine maa di nuyu tamit Youssou Ndoye l'espagnol bi mhm. maanaam mu nga ci Espagne fa lay basketé mhm. ñooñu ñëpp di samay xarit ñooñu mënu ma leen fàtte parce que dañ maa jàppale ba may door waaye ki ma sonal nag moom mooy must ki nga xam ne nii moom mooy Alassane Ndour Thiam mii daal sonal na ma moom daal leen yàgg di sonal nag. ndax ah. am na mais maa ngi koy béggee nag xam naa ne borom baax la. ay ayca ñu béggee également kii di suñu cadreur bi ah suñu xarit la moom tamit. disponible très disponible di Gomis. ñu koy nuyu bu baax di ko jaajëfal di leen jox dig daje rek ëllëg incha allah ci même waxtu bi ci seen journal de l'arène jërë ngeen jëf. moom tamit mosul am adversaire bu mel ni man. bu dee xee maa ko daax bu dee bëre maa ko daax. combat yi ma mës a bëri yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ma ci gën a neex. ñoo gis combat bu neex. barka alxuraan boobu lay gëj a bëri maa ko daa ko bëri fuuf daa ma ko bëri ndànk sax danaa ko damm ba toog ci kaw bu fekkee dafa am fu moom lu ma bëgg a du maam Lamine moom moo may téye Vox la voix de l'arène le G5 un gala cinq drapeaux cinq grands ci benn takkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena